day. ci teewaayam ak ci kanamam ak fu mu nekkul réew mi ñu ne Sénégal gox bu fasantikoo bu ne ba sañoon am ku mel ni moom ci sa gox ca ngëm yàlla ga ca am xam-xam nga macha allah ca tabe ga waaye nag di ko partagé ak ñëpp macha allah ni yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne mu doon def mu jël tànk yooyu jëlee ko ci maamam El Hadji Omar Foutiyou كان إلاجي إمام تيرنا أميدو بان سنو سرين نينغلاي دالال ديلا واخلان وشخلان نينغلاي جوخ سا تير ديلا جوخ سا واتيو واي بامو مات سك نдах لاغا تارال جوتاي وي لاغا ليرال جوتاي وي نдах جوتاي وي دي جوتاي كين كودول يالا اك يونتبي صلى الله عليه وسلم راواتينا نك ني ديف كتي وير ويغا خاماتين ويرو يالا لا موي ويرو شهر رمضان مبارك weer wi nga xamante ni yàlla moo koy fayal boppam waaye tey bés wi ñett ñoo ko taxawal muy les habitants de la Scat Urbam ñi nga xamante ni ñoo dëkkandoo fii di yeewandoo fii bokk ndey bokk bàyyi ci ñu góor ñi ak ñu jigéen ñi fi Scat Urbam ñu liggéey fi liggéey gu rafet tey nag di la huit ñu taxawal conférence religieuse bi utiwuñu kenn tànniwuñu kenn ku dul it kii dëkk Scat Urbam kooku bu ma ko waxee sama xol ak sama xel day dellu ci oustaz mbay mi nga xamante ni même bu fii ñun ca dañ koy soxal mu ñuy defal ay conférence waaye keneen ka ca tegu dëkk ak ñun fii àdduna wërngal këpp macha xam ko maam tur ba ma ko tuddee mu xam ko lool ndax daa dem Gabon nekk faak sama mag bu jigéen ñuy defandoo conférence muy Fatou mbay macha allah ajaratu yaa Seyda Fatou Binti Diop nit ku baax nit ku gore. ma tuddee ko yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam noonu laa ko tuddee ndax ci loolu rek lay wax ci loolu rek lay dox daa def social boo xamante ni daf maa mës a yéem am na benn jamono inondation bu bu rëy am ci réew mi keroog dafa génn ay ceeb ay saaku ceeb génn na ay matelas di ko jox ñu inondé nekk ca école ba nga xamante ni moo nekk HLM Grand Yoff ñu nekk ca macha allah mu ànd ceeg ñoom kon dox nga tànk yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ajaratu yaa sayda fat bintu Diop ñu ngi lay jox sa cër di la jox sa wàccuwaay bu baax a baax waaye nag ki nga ci àndal muy oustaz yaa sey yaa seyda yaa imaam eh, saybatu mbay saybatu mbay di sama xarit di sama baay ndax xamante nañu yàgg nañu lu ne ca xaar yàlla bu nuy wàcce kaamilu alxuraan di def njataayu diine moom mi lañ ci doyloo woo ko ca mu ñëw toog delloo ñu wàcc ci yàlla ak yontu bi sallallahu alayhi waaye tey nag muy première édition bi nga xamante ni les habitants de la Scat Urbam ñoo ko organisé jigéen ñi ni ngeen taaroo ngeen sol couleur diine lislaam ما شاء الله تلي لب كين وراء لك كدول ينتي الله محمد صلى الله عليه وسلم مومي وات دخل دين الإسلام بفيني تولني لي موي كيلوري الإسلام فير بلان ما شاء الله جيجيني مانا مانا ساسو من يجي كونفرانس بلا ما خول دارا لما يجي خول جيجيني بانوب ndax xamna ni goor ni ñom ngir ñu bari ci lool نيو table ba ngir ñu ci joxe lool dana neew waye bo bëgge rek conférence bo ak joxe jigéen ñi rek nemmeeku leen macha allah kon jigéen ñi gàcce laama ñu ngi leen di jéggalu bu baax a baax ci weeru koor bi di ñaan yàlla lépp luñ ci woor yàlla nañ ko yàlla nangul yàlla jéggal ñu suñuy bàkkaar ci barkent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam way daw di yi ni jiitu yàlla leen yàlla yërëm xare leen ajjana atte ci yërmandeem ci darajey rasulillahi alayhi salaam ci barke weeru koor wi ah yàlla mën na ko yomb na ko yalla nañ ko yalla defal ndax dugg nañ ci fukki fan yu njëkk duggaat ci fukki fan yu top di waajalaat fukki fan yu ci mujj te bu ci nekk rek yalla amna la ci wax fukki fan yu njëkk ya lu ci yalla wax fukki fan yu ca topp am lu ci yalla wax waye fukki fan yu ci mujj amna na lu ci yalla wax lool bu boba dañ koy mujjé baye ak ustaas yi tok rek ñu firil ñuko ko macha allah waaye nag dañuy commencer nak conférence bi ma bëgg nak ñun ñëpp ñu toogandoo. deglondo ma jël kaddu gi jox ko ki nga xamanteni moy sunu khalifa di sunu serigne di suñu lépp moy imam El Hadji Thierno Amidou ban mom lay jox kaddu gi mu ubbil ñu ay ñaan ñu doga tàmbali conférence incha allah. gàllitu allah juulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallam. neena nee bu mu sante yàlla julli ci sayyidna Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ne mu ngi nuyu mbokk bi fi teew yépp jigéen góor mag ak ndaw di leen wax ni assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu di ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu ne lu yàlla def si nuyoo bi yàlla na ko yàlla def ci jotaay bii ak mboolem jotaay yu mel nii beltinoon no feewi na feewi arde kontaan no lool lool lool lu mu ñëw fii fekk fi ñu mu fi fekk gila imam ko si imam cheyba

na nee na musul gis benn virgule wàññeeku ci moom. tamit nit bu am kóllëre la. yeeso e caggal fof. muy kanam muy ginnaaw. imam Cheyba min calminima min juurimaam min nee na imam Cheybatu mu ngi lay nuyu mu ngi lay ziyaara tamit. eɗen ñagonoma allah ngal ɗo koyngal ngal yàlla nawa ɗum mu ne mu ngi lay ñaanal yàlla yàlla na la yàlla gën a taxaw. jaahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ngir barke sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam so tawi mi salminima mi juurimomo noon mi salmini dendangal yimɓe jumaɓe fof ceerno nee na su nekkee nag nuyu na imaam Cheybatu Mbay daanaka nuyu na mboolem nit ñi ne xamante ne ñoo ngi yëngu si jàkka ji si jumaa ji ko way ni kamɓe kadi ko noɓe rek te moom imaam nu mu mel ñooneen ñu ko topp tamit noonu la ñu mel ila imam ahmadou diop tàmbalee ko ci imaam ahmadou diop ganduɗa mino kanko woni weeruwayam e leegal ki nga xamante ne moom mooy weeruwaay ceerno ci lee ci gox gi kala garɗo e am képp ku ñëw ci moom ceerno gandume muɗum ki mu képp ku ma lëjal képp ku mu ceerno nee na képp ku ko lëjal ñëw ci moom mbema ko yaata imam ahmadou da koy wax demal ci imam ahmadou kanko andi no o réglé ko o moom moo xam nu mu koy réglé mu réglé ko ba mu baax kadi o réglé haqqille te mu réglé woo ko ak xel kala ko kewi e bange aywa jokkere enɗam mu ne si jokku mbokk lépp lu xew suñ jokku mbokk si gox bi di lay inde haa e maayde tàmbalee ko si tudd ak dëj fof kanko mbiyam yoya lépp moom la ceerno di yabal somi ari kadi ne o wiyata ko ala fofto min fof mbiɗi mbiɗi wawi heedande moon su ceerno teewee tamit moom imam day wax déedéet ceerno yow noppaleeku lépp dinaa taxaw sa taxawaay yo allah yëpp mo moƴƴo ceerno nee na yéen ñëpp yàlla na leen yàlla fay yiw imam amin mu ne imam muhammadul amin ngom on kadi ko hono non kooku tamit nako noonu darna dinao. e eh, juma mu ne taxawaayam si juma ji kanum e leegal ak si gox bi diina o ak diine bi ko yalti leegal ngal ba yeneen gox fekk du gox gii ay fofu allah yi yo allah yo ceero neena lépp yàlla gis ko yàlla fay yiw kala noddu momi daro neena yum ko rek day to to eh, ba juma mariste ba kanko di plan mom kanko dari hen ha maha ha mom mo defar plan bi mom mo taxaw juma yi bañu tabax ko kon kan kanko woni ko welcome mu ne cioro neena mom tamit lol kess mo koy neex eywa eh, ngannduɗa kan ko minen ndenduno gollal ngal ɓe ñi nga xamante ne ñoom ñoo bokkoon démb laata tey mbir mi minen fof min ndenndi hunde wootere min jiidi yuma min jiidi baaba ñoom ñëpp ñu bokk lépp ñu bokk ndey bokk baay miɗen jiɗnoɓe tawtore hannde bugon nañu ñu fekkee tey enen fof ndenndede maɓɓe jettidede maɓɓe allah ñun ñu ak kono allah hoddiri ko hoddiri ko ɓe wante yàlla dogal lu muy dogal ñoom ñu jiitu gila e ceerno sirine touré tambale ko si Serigne Salih Touré. e kañum e e maam Ngor djouf ak mam Ngor Diouf e Diouf ak Diouf machallah ɓe dariɓe kamɓe en darde maɓɓe haa ɓe njehi ɓe gacciri en ɗo koɓe gacciri ko mu ne machallah ñoom taxawaan taxawaay nañ taxawoon nañu taxawaay bu rafet ba yàlla dogal ñum ñu jiitu sabu ne ngar ngar ɗo e leegal hende komi jeewanooɗo ndaxte moom Thierno mu ne bu mu ñëwee ci gox bi dafa wéetoon ko min jullanoo ɗo fajiri moo doon jiite fajar mo noddude mi juulna mu noddu mo jiite mi noddiri tisbar mi juulna mu mo noddu tisbar mo jiite mi noddu takkusan mi juulna mu nod mu noddu takkusan mo jiite mi noddu fotere mi juulna mu noddu timis mu juyte mi noddirno geeƴe mi juulna mu noddu gee mu jiite kono kamɓe nde ɓe ngari nde wante ñoom bu ñuy ñëwee fof mino ɗum imme bacci kam loolu yëpp nag yomb ci moom gila ndeen depuis bob mi arataani ni mu mune legui dem na sax bo ñewatul sax jooɗoo fodde duuɓi ɗiɗi mbaɗan dina tok lu mot ñaari at du ñew nde wonno ndaxte ko min gonno e mum ko lu ñu nekkoon ci kaw ha han tan ko hen min ba legui ci loolu rek lañu nekk feeñi noon e golal gal mune ne nak feñ na ci jotaay bi

kenn si ñoom eh mbela beela golle meɗen kadi eɓe nawi golle men ñoom ñëpp dañoo kontaan suñu liggéey seen liggéey bi fii si jumaa ji ak am naw naw si liggéey bi ɓe mbi heewi ɗo ɓe mbaɗi première pierre ñoom ñoo wax ñu ne bëri na fu ñu dem ci ay pause première pierre kon taw daani hono daani wante nuroowul comme seen juma ji kalande ɓe ngari do saa yu ñëwee fii be njii do ko ɓe njiyaano do dañuy gis fii luñ ñu fi daawuloon gis goddu hen ni ɓe ngara do taw enen be e nganndaa ko ɓe ngari do ɗum taw ko ɓe bettuɓe en mu ne des fois sax dañuy ñëw fii fek kenn du yëg ñëw nañu fii eɓe me ndi ɓe be e ɓe en saa yu ko gisee tamit dañ koy fatali loolu tamit di leen ñaanal kamɓe ardi benal en fo fof e eɗen duwo yallah yurmo ɗumen yaafude men ceerno neena képp ki nga xamante ne na si jumaaji ji yàlla def mu jitu ñong kay ñaanal yàlla na ko yàlla yërëm yàlla na ko yàlla xare àjjana mu ne ñi nga xamantene ñoo ñoo judd ci ginaaw yàlla na leen yàlla taxawu ñun tamit yéen ñëpp ciéro neena yàlla ñu yàlla may ñu nekk te yàlla rek a tax ɓiɓɓe meɗen e hoddiɓe meɗen fedde ñi nga ñoo taxaw taxawal fédération bi eywa ɓe golli ko yooɗi mu ne ñoo Ceerno nee na ñu defar nañu liggéey ju rafet sabu neɗɗo ko ɗum ɗo tan woni ko jeeye aduna Ceerno nee ndax nit lii rek la am ci àddinaam woni solidarité mooy solidarité solidarité o noon jogii ko façon ŋaaji haa heewi Ceerno nee na solidarité dafa am ay façon yu bëri kon ɗo ɗiɗo façon ŋaaji tati ɓuri siwde e solidarité ji ɗi wante ñetti façon solidarité yu mu bugg wax mooy façon solidarité yu gën a siiw gandal ma nga euh, sa xam-xam e doole ma sa mën-mën jaw jawdi ma ak sa alal onon mbaɗi fof mu ne yéen nag def ngeen lépp oɗon gadda gandal mon da ngeen di indi seen xam-xam oɗon doole mon da ngeen indi seen doole oɗon mbaɗa heen jawdi mon da ngeen tamit def seen alal yo allah nawor on yeeso yal na leen yàlla gën a gunge ci kanam enen bi jaahi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ngir bàgg sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam cakkitor fami noon mu ne fu muy mujjee nag mi sakkitotaako ni kon noon ko musidɗo musidɗam goto fuleeram cheikh cheikh ahmad tidiane ñang mu ne loolu waxin la rek alam ɗo mo cakkitotomi omi arani hen taw mu ne ku muy mujjee ñëwgul ci moom eyi eh, cheikh ahmad tidiane ñang mu ne xaritam cheikh ahmad tidiane eh, sama papa cheikh ahmad tidiane ñang onne kadi nee na mu ngi lay nuyu di la ziar gila allah addi moye leegal depuis bu la yàlla indee si gox bi leegal ngal le wuur ko na ngal ɓeyde mo wuddata bange qur'an mu ne gox bi dundoon na wante bi nga ñëwee gox bi gën a dundaat ci alquran Yalla na yàlla fay yiw yàlla na yàlla gën la dëgëral ci li nga nekk ah, yow ak sa njaboot yëpp yàlla na yàlla jàppale mu lu mu fu sama yaay ji giɗam sehilam xaritam doomu ndeyam mo ganduɗa ki nga xamante ne gila allah waɗi min di depuis ñu xamante ñoom ñaar no mbirumi imam ba ni tan nu mu waxee imam cheybatu rek mi su mi moo so wonaa koye ko moƴƴi mu ne gisul ko lu dul ci lu baax koko moƴƴi o yahata lu baax rek lay dem ko ko moƴƴi o lu baax rek lay wax koko moƴƴi o gollata lu baax rek tamit lay jëf te miɗe miɗe miɗe yiya makko qualité ji mi meeɗaani yiɗume neɗɗo ceerno nee na mu ngi gis sama yaay bi ay qualité yi nga xamante ne mosu ko gis nit min di ñoom ñaar yàgg nañu lool kala ɓurɗo anjema kanko ko on ɓuri yidde ceerno nee na moom képp ku ko gën a bañ kooku lay gën a sopp waɗino amoon na benn jamono won garɗo am na ku ñëwoon haali e makko wax ci moom haalaji mawɗi ha wax yu rëy rëy haalaji ɗon ko haalaji ɗi wonaa haalaji ay pewnoji mu ne wax yooyu nek nekkul wax yu defar ay mbokk yetti haalani kam kooku ñëw wax ko ceerno kanko nde o ari moom bu mu ñëwee o eɗa anndi kaari en mu ne ceer mu ne ceerno xam nga diw a mbi mbiɗa anndi ceerno mu ne ko waaw aɗa anndi kaari en ceer mu ne xam nga diw mbi mi mbiɗa anndi mu ne ko waaw o wi jagguɓe ceerno nee na mu ne la mu ne ceerno teel ñooñu koɓe yiɗɓe ma ñooñu say soppe lañu ñooñu ñu baax lañu o moƴƴini o moƴƴini o moƴƴini haa min hooram najmi mu rafetal ñooñu si kanam ceerno ba ceerno jaaxle te kanko mo anndi ko woni heen te moom xam na lu fa xew firti noon ko kanko ɓernde makko nde ko allah tan woni toon loolu lu muy signifié mooy moom xolam bi yàlla kese moo fa nekk min jaadi jamma ànd nañu guddi min jaadi ñalawma ànd nañu bëccëg min jaadi subak ànd nañu suba min jaadi kigiɗe ànd nañu ngoon hay heen ko gooto amul ñu dem ذلك fu ñu fu ñu dem taw min mbaawaan haat bi haqurib amul fenn fu ñu dem fi nga xamante ne mënuñu ko waxaat ci kanamu mbooloo haa min hoore mbiye fatu bintu ana ala haajo ba moom mu ne tata fatu bintu yow xanaa amoo aajo ko haajoji yimɓe tan yow ay aajo nit rek ngay dox balle o dimbali leen kii nafe o jàppale leen kii kala ko heɓi lépp lu mu am da koy delloowaat ci miskin yi ceero nee na yàlla na yàlla fay yiw ceero nee na moom de kontaan na ci yow te kontaan na ci yow yal na yàlla gën a dëgëral taxawaay bi yal na yàlla gën a dëgëral taxawaay bi mu ne yaayam yi xaritam yi mu ne moom moom du wax lu dul day ñaan yàlla yal na leen yàlla yàggal seen kanam maire Diouf Kadumbe maire Diallo mu ne ñoo ngi toog fii ñoom maire Fall maire Diouf ak ñoom maire Diallo ɓen ɗon ko ɓen woni min min woni neena ñoom ñoom ceerno ceerno moye na mooy ɓe garmi ɗo julde somi yaani ɓe ne wayno wonko manque am sa yi ñëw fii jiite su leen gisul day mel dafa am lu manque ci ñoom yàlla yàlla na leen yàlla yàggal suñu kanam eywa mbadda ko nabi en ɓe on on neena ñuy woy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yéen tamit jërë ngeen jëf eywa Abdoul Aziz Abdoul Aziz jazakallahu xeyra yàlla na yàlla fay ɗo joni joni wonko miccitimi mbiɗa haali ɗum tahaddusan be nicmatillahi mu ne léegi léegi am na lu mu fàttaliku da koy wax ngir sante ko yàlla ceerno men ceerno bachir muntaga taha mu ne ceerno bachiru muntaga taha kono fof ɗon gandi golle makko mu ne yéen ñëpp xam ngeen ay jëfam kono fof ɗon gandi darde makko yéen ñëpp xam ngeen taxawaayam ci diine bi eywa enen fof eɗen jiiñamo wilaya ñun ñëpp dañ koy gisee wilaya eyi goto meɗen fof ñun ñëpp ene wiya day wax ni ko waliyu allah ceerno bachiru waliyu ya ɗum ko allah anndi mu ne loolu yàlla rek a ko xam kono noon wante nag aywa allah holli kam yàlla wonno ko ni oɗo ko seede kii seede la eywa wonko min mbaddi ñoom am na lu ñu jëflante kanko ko seede joni joni mbiɗiti kam ɗo moom seede la léegi léegi la ko fàttali ceerno walla goonga walla fenaani ceerno mu ne ko est ce que noonu la lan la woon nii nañ ko yàgg ba dama Thierno Bachir imam Thierno gitu. bi lay nuyu nga reetaan di ma yow nga nañ ko Thierno reetaan di ma nga nañ ko heure bii dama di ma jógoo doo ko jox nuyoo yow saalim ko waaw nee na moom dafa dem ba kaaba ga ca màkka di raay kaaba gi xelam dem ci loolu mu reetaan xelam dem ci man ma ñaanal waaw foofu laa tolloo ak sa ak ak ak ak saxa bu tàng bi saxa bu tàng bi saxa saxa bu tàng bi waaw moom bi mu laalee naka la lan la wax lan sax lan la defoon ah. saxa saxa bu gul la woon. machine bi bu laalee saxa saxa bi. bi mu ngi jël jël mais bi mu ko laalee daa seetlu wuy. yàlla ak moom mii. ñu bokk ak seen machine añ boobu. Eh, foo noo ko welti. mu ne lu tax muy wax lii yëpp. day wane ne dafa bég si jotaay bi mbiyenem komi uddirdu waaw kono noon fakkami haala ɗo mu ne dañ ko waxoon na ubbi ñaan wante tellement dafa kontaan mu ne faaw mu wax sabu ɗo nde société nde ko allah sosi ɗum ko miino sosi ɗum mu ne ndaxte fii buñ koy taxawal yàlla moo ko taxaw wante da ko jaarle si loxom ɓeeɗo heewɓe heen nde tawa mu ne ñu fi nekk ñu bëri fekkee nañ ko musidɗo gaddunooɗo ndiran o ko lewru mayno ndu hawre lajal ni ɓe njayi koñor mu ne ki nga xamante ne mooy indi woon pour ñu defar fii niveler suuf si si semaine yee passé la gaani muy njaay koñoor ɗum ɗon somi ari ɗo mbiɗe weltoo kadi mbiɗe haala kadi nde wonno ko ɗo jeeyami mu ne loomata so ñëwee fii day contant ndaxte fii le bokk ɗum noon eɗen mbaɗa fatiha salatul fatiha ceerno neena ñu ñëpp ñu booloo ñu jàng fatiha ak salatul fatihi ɗum ɗo ko subaa ko mu ne ɗum ko sumbaɗo ko mu ne li nga xamante ne loolu la ñu sumb fii yo allah yettil ɗum yàlla na ko yàlla àggali si jàmm yo allah yettil ɗum yàlla na ko yàlla ak àggali si jàmm hande ko ñande badri mu ne tey bésu badri la yimɓe badri keɓirno victoire li mu ne waa badri nu ñu amee woon victoire ci diine bi haɓe keɓi ngermande yàlla ba ñu am yërmande yàlla association yàlla hokkumo victoire mu ne association bi yàlla na ko yàlla may victoire haɓe keɓa heen ngermande yàlla ba ñoom tamit ñu am si ngermande yàlla enen fof kadi keɓen heen ñun ñëpp tamit ñu bokk ci eh, ba jàngen fatiha ñu jàng fatiha e fatiha asalatul fatihi eywa eh, haala juuti mu ne wax bi gudd na kono ko weltaare tan wante dafa fatali ku démb e yiide hande ak gis tay mi dafa yettude hen allah mune lolou mom daf ci wara sante yalla yàlla ko en ɓooyde yettude allah mune yàlla nañu yàlla may ñu yàgg di sant yàlla eywa so ɗum yawti noon mu ne su weesoo aywa ɓanndu noon e manque manque welde seeɗa mu ne yaram bi dëgërul bu baax aywa imam cheyba imam cheyba mom mune imam cheyba fépp fu mu nek mom ceerno mo ngi fa ndaxte Thierno nee neena imam Cheyba moy mom mom moy imam Cheyba lépp lu imam Cheyba wax lolu engagé na Thierno lépp lu imam Cheyba duggu engagé na Thierno ndaxte moom Thierno xam xamna ni imam Cheyba duggu ludul fu bax tamit mo ngi tok ak sama yaay ji koku tamit macha allah na ko noonu ko waxe na tok bamu tass day tok bamu tass tamit soo leen ko yeewwee tamit ngeen ko bëggee rek la koy defee incha allah ceero nee nañu jàng fatiha ak salaatul fatihi اللهم يا فتاه ويا فاتح الخيرات ويا فاتح الأرزاق افتح لنا فتحا مبينا وارزقنا رزقا واسعا طيبا ثابتا مباركا فيه بسر اسمك العظيم العظيم الكريم الأكرم الكريم وبسر لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما الحمد لله رب العالمين جرجف di seen tur ak seen sant pour feddali seen euh, kóllëre ak bis bi nga xam ni te ñi fi ëpp ñëpp macha allah ci jumaa ji lañu ñu euh, doon jullee ñoo ko sos muy ñi ci mën a lim mooy góor gi ngóor Diouf ak sëñ Saliou Touré ñoom su leen sitee rek wax nañu ci jàkka ji ñëpp ñi nga xam ni ñoom euh, sos nañ ko jumaa ji nag comme ni ko imaam ratib waxee léegi macha allah jumaa ju am barke la jumaa ju yéeme la te léppam mu ngi soso ci ñaanam keroog ñaan ngi fi ñëpp xamee ni fa muy teere incha allah dana neex nit ñi mooy keroog ba ñuy def première ba ñuy def publicité bi euh, euh, kër sëñ Muntaxa daxaar sëñ Muntaxa Taal lañu dem ci néegam mu ñot ñetti toog ñaan yàlla moom moo def avant première bi woo rajo Sénégal ni ñu posé première pierre bi le 9 août 99

ci la ñu dem tàggu imaam ni que dañu bëgg yokk jumaa ji ndax xat ma ngi commencé xat mu ñaanal ñu ci yàlla mu ne waaye nag moom benn souci la ci am mooy ñu ngi fiy julli di fi ñaan di fi def lu nekk di fi jàng alxuraan mu ni kon sécurité bi daal mooy problème ñu ne que soo ko ñaanee incha allah daañu ko tabax ba mu àgg te dana nekk ci sécurité moom bañ ko tàmbalee le premier novembre àllarba mercredi premier novembre deux mille dix-neuf ci la ñu def première pierre bi nii. Masha'Allah, mu bébé bi nekkoon 350 millions tey ñoo ci 420 millions te pare pareegul des na peinture bi peinture moo ci des ak rampe yi nga ci escalier rampe yi 25 rampe la rampe mu nekk 25 mille francs lañ koy joxe ku fi jóge te am loolu mën nga jóge ni am pare na benn rampe nga jox ñu 25 mille francs peinture bi 35 seaux gilatex moom lañ moom lañ fi soxla ak 10 caisses d'huile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 آبائي أمهاتي أصدقائي زملائي الأساتذة والأئمة نهنئكم بهذه المناسبة الطيبة ونهنئكم ببركة هذا الشهر الكريم الشهر الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان مبقي السلام عليكم ورحمة الله ngi nuyu kenn kenn ku ne ci yéen di ko jox suñu loxo xol ah di jiital ci nuyoo bi ki nga xamante ne la le premier magistrat mu ngi nii toog monsieur le maire Madiop Diop ñu ngi lay nuyu bu baax di la dalal ci turu association bi yépp ah, ku wàccee boppam la ndax xam nañu ko bu baax jaxasoo nañu it yàgg nañu di jaxasoo te ñoo bokk ay naanuwaay ci suuf keppaaru Thierno Hamidou Bane mu fi jóge sànq kon nag lu ñu wax ci moom rek dafa mel ni ah dañuy jiima yëkkati waye mom ku suufee sa bop yàlla yekati la man tawaadaa lillahi rafaahu allah kep ku wacce sa bop yàlla mo lay yekati kon nak limu nek ni tay la gharwa jomb ko ndax amna fumay baña dugg mom xamna mom xamna ba cierna Hamidou Ban di waxanteex moom yooyu yëpp jot gi duñu ko may kon nak monsieur le maire jërëjëf si sa teway fi sa njabot ño fi tew nga ñëw gungelen ànd ak ñom te xam naa ne am na yeneen sollicitation yu lay xaar waaye nag sa teewaay am na solo lool imaam Thierno Hamidou Bane mi fi jóge sànq ah li mu wax jëme ko ci mbooloo mi du ma ne jëme ko ci man waaye jëme ko ci mbooloo mi ci moom la ne parce que moom la yàlla def mooy imaam ratib moom la yàlla def muy imaam ratib bu gox bi ma toftalu ci waaye man damay puus taxaw na le jël cër bi yëpp jox ko imaam Diop imaam Souleymane Bari imaam Lamine Ngom imaam Aline Badara Ciss man seen surga rek la te it ñu jàppale ñu bu baax xam li yàlla def ñu nangu ko nangu dogalu yàlla àndandoo benn famille lañu kon nag ñu ngi leen di jaajëfal ñoom ñépp macha allah imaam ñaam mi toog sànq ñu ngi koy dalal moomit ci gox bi la bokk yor fi daara te lépp fii la cosaanoo kon nag yal na ko yàlla jàppale bu baax di nuyu suñu pàpp suñu wayjur di suñu soppe di suñu xarit El Hadj Abdoulaye Diop mu ngi nii sama ginnaaw donc daana sama yar ci loxaam lañu ko teg ba may nekk tuut tànk ba tey jii ba yàlla def li mu def yépp moo tax fu ma dem rek dama koy sagoo moom dama koy sagoo ndax na mu ànd wanax magam di sama wayjur dara yàqu ci lépp a rafet njaboot gi noonu lañu mel xam nañ ne ñii may seen mag ñu topp sama ginnaaw lépp lu may def rek ñu ànd ci kon nag jaajeen jëf maa ngi jaajëfal it waaye yoof ñi fi teew ndax dama leen di wax ne ndawal ñaari réew la waaye nag buñ doon séddale waaye yoof da ngeen di ñàkk waaye Scat Urbam ñoo may moom ndax c'est seen jikko seen jàpp seen taxaw seen yëg-yëg ci man kon nag yal leen yàlla fay ñoom ñëpp soxna si mu ngi ci biir mbooloo mi mu wax yaa am ami ñu ngi leen di nuyu bu baax ñu ngi leen di dalal waa comité directeur association bi li Maajoor wax sànq ci président na boo ko waxee rek tudd nga commission yi am ci association bi yépp moom du tey la taxaw toogul ba nekk président association bi déedéet waaye sa coopérative d'habitat la tàmbalee woon moom na guddi bëccëg di ci sonn di ci daw lu ne ku ñëw yaatal na la ku ñëw dalal na la ku ñëw tette na la ku ñëw wan na la yoon ubbi na boppam ci ñëpp kon ñoom it ñu ngi koy ñaanal di ko gërëm comité directeur bi yëpp ñu ngi lay ñaanal Marina yal na yàlla def nga eggalex jàmm ñaan googu ñu ngi ciy laaw képp ku mas a nekk président association ba ci jëmm ci tey mag ñi ci biir association bi moom mention spéciale muy góor ñi muy jigéen muy góor ñi muy jigéen yal leen yàlla sagal ni ngeen ñu sagale yal leen yàlla siggile ni ngeen ñu siggile sagal ngeen gox bi sagal ngeen ñépp macha allah boo ñu fekkee ñu toog danga naan ay moroom lañ kon nag yal leen yàlla sagal niki noonu di nuyu doyen d'âge yépp ci gox bi pour bañ tudd ay tur rekk moo tax waaye mag ñi ci góor ci jigéen ñépp ñu ngi leen di dalal jàmm di leen ñaanal ci barke weeru koor bi délégué de quartier yi ñoom it si seen toyewaayu kilifa gi toog mu le maire ñu ngi lay wax ne suñu délégué de quartier amuñu moroom boo jëlee Scat Urbam délégué El Hadji Mamadou Ciss amul nelaw amul yendal du noppalu benn yoon yal na ko yàlla sagal boo jëlee Kër Xaadim délégué Mamadou Li doyen moom it du noppalu macha allah foo ko fekk rek mu ngi ci askan wi mu ngi ci jaamu yàlla yi nga jël amoo délégué sa Ndiaye moom it kazalika taxaw guddi taxaw suba kon nag suñuy ñetti délégué de quartier yooyu le bàjjenu gox yi tamit kazalika ni ki noonu noppala ñu benn yoon noppala ñu benn yoon kon boo ñëwoon fekk association Scat Urbam di taxaw di waxtaan di doxal du doo xàmmee kii mooy délégué de kii mooy bàddañu gox kii mooy bien bienfaiteur kii mooy nangam kii mooy nangam wenn say la ñuy def ñoom ñépp soxla bu ñu songa rek moo tax lu ñu songa yàlla def ci tawfiixul ilaahi kon nag yàlla na yàlla dolli ndimbalam ci gox bi yal na fi yàlla dolli jàmm di dalal di ñaanal Adja Fatou Binti Diop ndax man tey duma conférencier moom mooy conférencier bi ndax man ci laa bokk waaye moom it ci la bokk ndax Thierno mu fi jóge moo ñu xamale woon yàgg na boo wax léegi li mu wax ci moom rek dara masul soppeeku ci moom wax dëgg yàlla nañ ko xamee woon ba tey rek lañ ko xamee kon nag Adja waa Scat Urbam ñëpp ñu ngi lay dalal di la jaajëfal di la massaw ci coono yi yaa ngi jóge si tukki waaye nga bàyyi lépp ñëw pour bés bi nga honoré ko yàlla la yàlla defal jàmm yàlla yàlla defal sa sutura ba fecc sa làmmiñ incha allah tem yi ñu ba fës ne waxtaane ah jër jërëjëf waa waa ngaay jërëjëf waa ngaay waa ngaay moom si mbir mi lañu bokk du noonu waa ngaay ci mbir mi la bokk ñoom ñu ngi leen di dalal waaye comme monsieur nañu gërëm leen nañu leen gërëm nañu leen ñaanal ndax dañu fi am ay représentant yu mat ay représentant ñu taxaw sëñ Koso sëñ Maxet ah seeni soxna yi ku lim juum dañu taxaw taxawaay bu rafet monsieur le maire ñu ngi lay dalal jàmm ak ku la mën a teewal ñu ngi lay nuyu bu baax ndax jëm nañ fa demati fa waaye teraanga bu ne daf koy defal Scat Urbam teranga bu ne lu ngeen xelaat rek daf koy defal Scat Urbam ci yaatal ci dalal ci ñépp kon nak yalla leen yàlla sagal yalla leen yàlla fay tem yi ñu fas yéene waxtaane mooy solidarité et et nan la ko l'islam gise tem bobu suñu soppe Adja Fat Bintu mom lañ koy bayil mom moo koy traité inshallah su ko man dama koy ubbil ci lem importance bi nga xamante ne jàmm loolu la mooy jàmm ci nit ki jàmm ci gox ba ngay dunde jàmm sa askan wa su ko defee jàmm ci réew mi jàmm ci àddina bi nan la ko lislaam gis kon nag ñu ngi leen di jaajëfalaat di wax ne waxtu koor lañu ne waxtu niñ koy tuddee jamono promotion la ndax suñu borom moo ko njëkkal defal promotion ndax dafa wax ne assawmu lii wa ana ajzi bi koor maa ko moom maa koy fayal sama bopp assawmu lii wa ana ajzi bi ñu laaj ko lu tax mu ne dafa bàyyi ay bëgg-bëggam yépp lekkam naanam ay aajoom yépp yu mu bàyyi ngir man kon nag man maa koy jële sama bopp te koor gu ma nangu fayam nekkul lu dul tàbbal borom aljana yàlla nu ko yàlla defal ñu ngi leen di ndokkeel ci weeru bu baax rawatina fukki fan yi ñu dëgmal muy fukki fan yu ngoreel safara waaye li ko jiitu muy fukki fan yu jëkkee di yërmande fukki fan yi ñu nekk ni di am jéggal yàlla na suñu borom bi yërëm yàlla na borom bi jéggal wax nañ ko sànq ñaanal nañ ñi fi masa a bàyyeekoo ñépp suba def nañ fi kaamil macha allah yal na yàlla nangu ñaan ñi ko taxawe ñépp yal leen yàlla jàppale bu baax bu ñu ñëwee ci thème yi bu ñu dugalee introduction bi dañuy gis ne ci constitution bu Sénégal ci xët bu jëkk bi ñu koy tudde préambule bi dafay wax sañ-sañu doomu aadama bu ne góor ak jigéen ci taxaw ci jàppalante ci dimbalante ci solidarité liggéey jariñ sa bopp jariñ sa askan jàmm sa bopp jàmmal sa askan kon loolu ñépp ci bokk yam parce que ñun ñoo d'accord ne ay sénégalais lañ ay citoyens lañ kon nag dëkk bi war na am jàmm su jàmm amee nag ñu mën a toog waxtaan la suñu borom di wax ne inna jaalnaakum shuuban wa qabaila li taaarafu inna akramakum inda allahi atxaakum faneen mu teg ne wa taawanu ala albirri waltaqwa wala taawanu ala alithmi waludwan loolu rek mooy résumé ñaari thèmes yi su ko defee bu jëkk bi moom laa fëskee ne ubbi bu ñaareel bi Adja Fat Bintou Diop dana ci ñëw loolu moo tax boo xoolee même CDAO gi nga xamantene ne réew yi si lañ bokk rawatina suñu réew Sénégal ñu créé ko won en 1975 ci lolu lay dox ngir jàmm ngir sécurité ba motax en 1990 aussi ñu indi coopération de la paix ñuy dem fu jàmm war a am ñu saxal ko fo fu ay nar a tàkk ñu fay fu réeroo nar a am ñu def fa ak déggoo yooyu yépp dafay dugg ci jàmm ci jàmmoo jooju ci la yonente bi sallallahu alayhi wa ba mu demee Médine loolu la njëkk a ak ñoom muy accord de paix ndax fekkoon na fa ay communauté ñii dugg nañ ci lislaam waye amna majorité bi dugguñu ci l'islam bu ñewon rek andi khat khat andi khadar andi banen doxali dana rero ak ñom waye dafa andi ay accord de paix ken du dal suñu kaw ngeen diko ko ñu nit ken du dal seen kaw ñukoy koy ku jamm wax yéen ñu jamm wax mom ku non wax yéen ñu non wax ñom ku soxla ci ñun ngeen dimbaliko ku soxla ci yéen ñu dimbaliko lépp lu ngeen sóobu fekk ñu ci lépp lu ñu sóobu na ngeen ñu ci jàppale donc loolu moo taxoon julli di réussir seen entrée ci biir Médine kon nag politique boobu ñun ñu njabootu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom lañu ñu war a continuer ndax kenn warul mujje pusa muy réer ci jàmm joojule yonente bi joxewaat beneen misaal muy sulxul xudaybiya ndax bëgg na dem umra yene def ay ajam ñu tere ko mu ne kon nañu signé accord de paix ñu nekk kat ren du mën a nekk waaye déwén kon loolu bu bëggul woon jàmm du ko dox udxulu fi silmi kaafatan la alquran wax ah l'islam moom da ngay jël lépp ci wàllu julli ci wàllu koor ci wàllu zakat ci wàllu dimbalinte ci wàllu jihad ci wàllu digle lu baax ci wàllu tere lu bon kon ku ci ne dangay xam ne lii sa cër la kon su ko defee nan lañuy def ba jàmm am pour jàmm am foog ñu jàppalante foog solidarité am moo tax suñu boroom ne wa ma xalaqtu l insa wal jinna illa li yacbudun ni tax jinne dama leen bind ngir ñu jaamu ma dama leen bind ngir ñu jaamu kon suñu borom mu ngi ñuy xamal suñu mission ci kaw suuf muy ñu jaamu ko dëgg-dëgg جامو mooy taatullahi الله ورسوله بالاخلاص في جميع الاعمال والامتثال لاوامره والحذر من نواهيه awaamirihi wal xazari min nawahihi mooy lépp lu lislaam digle ñu ne ci lépp lu mu tere ñu bàyyi ko dimbalinte it تي anam yépp fu ñu ndax ajaa moy développé lolu inshallah fexe ba xol yi jëm ci seen borom jubboo it ak seen borom kon bu ngeen seetee mbokk yi wala salaaxa lil ibaad wala raaxata li qulubihim wala tumanina li damairihim illa bil iqbaali ala allah azza wa jal tilka xuduudullah wa man yuti illaha wa rasuluhu yudxilhu jannatin tajri min tahtiha anhar ila akhiril aya mu ne lii mooy frontière suñu borom bu leen ko jiima jalgati képp ku jalgati dafa mel ni dal yaa ko teg sa bopp kon réew mi ñu nekk di réewum Senegal, dafa teg ay at ay loi ku def nangam nangam ku def nangam nangam du alquran waye boo jalgate alquran moy ñeuk dal sa kaw parce que citoyen nga kon ken manul wax la paix ta waxul citoyenneté li ñuy soxla ci doomu aadama bu ne buy yeewoo ci rew mi am nationalité sénégalaise ga doon un citoyen modèle pour mëna andi jam ci sa biir famille andi jam ci sa ethnie indi jàmm si sa communauté indi jàmm ci askan wi muy senegal gi ñu bokk bu ñu waxee solidarité boobu ngir ci wàllu jàmm mooy at taawun wa takaatuf wa takaaluf wa tanaasur wa tawaasi mooy dimbalante mooy jàppalante mooy yërëmante mooy di laayante biir ci lu baax ñu def di laayante biir ci sofaan ñu sori ko pour jàmmaam am fokk ñu xamal ñi xamul taalimul jaahil dañ ko firee rekk kii réer waaye ku xamul ñu fexe xamal la loolu moo tax réew mi am système éducatif di jàngal ndaw ñi ndax ndaw moy nek mak ëlëk waye do ci yam waye wa ihaasati malhuf kep ku loru ñu taxawu bu baax comme ni ko wa Scat Urbam di defe wa al mazlum ku ñu tooñ ñu fexe nek sa bor nek sa wet xettali la ba nga fàtte sa coono waraddu zalimi an zulmi ku jël loo warul jël ñu fexe ba nangu ko ci yow delloo ko seeni borom fexe ba teg ay atte yoo xamante ne kenn du ko jalgati xifzul am fexe ba sécurité am ñu ngi jaajëfal bu baax commissaire aaj ah ñu mel ni ñoom ñoom commissaire jigo ñeneen ñi fi nekk ñépp di jàppale gox bi si wàllu sécurité di jàppale gox bi ci walu sécurité ni ki noonu colonel Abdoulaye Ndiaye ñom ñep rek ñu ngi leen di jaajeufal ci lolu le wal ahzi ala al mufsidin fahaba ñi jalgati ñu téye sen loxo parce que lolu fex amul sécurité fu mu manké rek nit ñi daatu ñu nelaw dootu ñu wolu génn فوتك سالال sa alal sa xel du dal kon dëgg war nañ amal sécurité bu doy kon gox bi it loolu ñu ci sumb yàlla na pour sécurité amit war nañ gor gor lu ba moy de transport yi mu jàppandi mo xam ci côté géej gi la ci côté jawaji la ci côté joor gi la ndax lolu dafay indi sécurité dafay indi jàmm te ku wax sécurité wax jàmm wax développement kon réew mënul développé bu fekkee dafa manqué sécurité rawatina li nga xamante ne mooy moyen de transport fexe ba dëgg jub fexe ba dëgg jub fépp foo nekk rek fexeel di wax dëgg waaye nag wajaadilhum billati hiya ahsan la alquran wax da nga gis sa waay nekkul ci dëgg bul ñëw rek ne ko pël ci digg mbooloo mi ne diw day lu ko sañ lu nit ñi mënul sañ moo koy wax waaw déedéet loolu baaxul waaw parce que boo seetee alquran isim baasa ashqaaha dafa jara moyta nag ka sañ wax ka sañ jëf muy xadaar ibnu salif ba ñuy wax ne nañu rey gëleemu yonent yàlla saalix mu ne man man man naa ko def kon nag wa jaadilhum billati hiya ahsan da ngay wax ñi ci diplomatie ci dal ci teey soo ko defee rek ñu nangul la la nga bëgg ba tey ci wàllu solidarité ngir sécurité fexe ba diggante yi retax fexe ba diggante yi ritax tax te loolu mën nañ ci citer exemple jumelage entre skat irbam ah la ville de Ngaye mexe kon loolu dara la ah naal yi ñu naal yépp mooy fexe ba diggante yi rafet kon alquran buy wax inna ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila li ngir jariñante moo tax muy wax mu jariñante moo tax ñuy wax ah jërëjëf jërëjëf Adja jërëjëf jërëjëf jërëjëf Adja Adja jërëjëf jëf jërëjëf jëf jëf jërëjëf jëf jërëjëf déedéet déedéet jërëjëf baarakallah jërëjëf ah jërëjën jëf bàjjenu gox jërëjëf waaw ñi ñi ñiy jóg wax dëgg yàlla suñu yaram dafay daw ci ñoom nii rek lañu la ñu nekkee ax ñun ci ñaan gi si suba rek ñu baalati ñu ñu ngi xel a ngi sori si suñu pàpp suñu wayjur suñu wëllëre El Hadj Aline Fall yal ko yàlla dolli ay leer namu mu taxawe ak ñun batay non la njabotam taxawe moy fexe bu julli yi lekkelo nek ben andi sa seize ni wala c'est pas fexe ba jullit yi nekk benn kon loolu à titre d'exemple moom la Scat Urbam di def kon nag monsieur le maire loolu seen mbir la loolu seen mbir la asalaamaaleykum jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf baarakallah baarakallah jërëjëf jërëjëf jërëjëf yann yàlla fay parce que jërëjëf kontaan nañ bu baax a baax vraiment jërëjeen jëf jërëjeen jëf bu ñu demee ci solidarité ci paix pour la stabilité di pays dafa am saar wu ñu tudde xujuraat muy les appartements suratul hujarat muy les appartements saar woowu maa ngi ci occasion bi di len ñaan kenn ku si nang ko jangat bu baax di ko dundal sa entourage di len ko fatali ndax saar bari ay jangat la parce que yalla bu doon nit nga ne du cuune bu mu jël saar tudde les appartements néegu yonente yi moom la tudde saar boobule parce que néeg bu ne am na lu ñu fa doon jànge am na lu ñu fa doon jële ci mbaax mu ne wa in taifataani min almuminina ixtatalu fa aslixu baynahuma fa in baxat ixdaahuma ala aluxra fa qaatilu allati tabxi xatta tafi'a ila amri llah fa in faat فأصلحوا بينهما بالعدل وعصتوا إن الله لا يحب المحسنين إن الله يحب المحسنين خلال من بو فكنتني نياري كوريل نياري نيت نياري فامي نياري اسوسياسيون نياري او ان جي نياري نياري نياري دانيو ام كونفليت سين بير من ين نيدس نغن تخاو بور ريغلي سيتياسيون بوبولي par médiation par médiation su fekkente ne benn parti bi dafa nangu keneen ki nanguwul mu ne yéen ñépp na ngeen nekk benn say dal ci kawam moom ci embargo ci fexe jël ay xalaat nan lañu koy koy contrecarrer ba ka mu jël ak xam dana ko delloo ak xam mooy wa in taifataani min almuminina axtatalu fa aslihu baynahuma na ngeen yéwénal waaye nag keneen ko bu bañee fexe leen ba na ngeen rangé wu si kii nangu jubboo kii nangu jàmmaam na ngeen rangé wu si côté am kon loolu alquran la waaye du waxu nit lu tax mu ne innama almuminuuna ixwa ay frère ngeen ay mbokk ngeen fa ndëg wattaqullaha laallakum turhamuun pour stabilité am bul xeeb ken motax mune ya ayyuhal allazina amanu la yashar xawmun min qawm asa an yakunu khayran minhu wala nisaun min nisa asa an yakunna xayran minhun mu ne yéen góor ñi bu leen gis kenn di ko xeeb ah fii day wax dëgg yàlla وما شهدنا إلا بما علمنا أموفي في سكات إربام كنيو جس رك تاني فات سال إنسان بوب يكتي لبصح دعانا لن لا لن تفعل بني سحنا يتمت كذلك نكون نون لن يمل بني سحنا يت نون لن يمل من ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب bisal ismul fusuh aya ba ba mu jeex lan la yàlla di wax fofu bu len xébanté bu ges ken diko xeb ki de gën dedet xolal li yàlla di wax ne inna ja'alnakum shuuban wa qabaila ay communauté rek ñoo fi daje lébu baangi ci biir séréer baangi fi njaago baangi fi joolaa baa ngi fi mandeng baa ngi fi saraxulle baa ngi fi pël baa ngi fi soose baa ngi fi naar baa ngi fi ñépp ngi ci biir ñu dajaloo génn kuréel tudde ko association des habitants de l'Ascat Urbam kon bu fekkonte ne dañuy xeebante dañuy boddi kon réussite yi ñuy amagul axas néew te des na ci kanam kon duñ ko àggal yal na yàlla dimbali ba loola mooy lii tax jàmm am ci réew mi te jàmm na pour mu am ci réew mi foog jàmm am ci kër yi foog jàmm am ci gox bi su ko defee muy law di law ba laal réew mi yëpp ba laal àddina bi yëpp mbokk yi pour jàmm am foog ñu xool système politique bi nan la ñuy politiquer politique araamu waaye defin moom la ñu baree bari sawarul ci waxante lu ñaaw ci waxante lu ñaaw loolu moo tax ñu bari sawaruñu ci politique waaye lislaam dafa indi système boo xamante ne bu ci ñëpp tënku woon rek jàmm am bu fi ñëpp tënku woon jàmm am xoolal ba mu demee Médine jullit yi bi ñuy jóge màkk di dem Médine dañu tumuraanki ay doxandeem lañu ku ci amoon alal màkk nga ko bàyyi nga ko màkk dem fële tàmbaliwaat zéro muy góor ñi muy jigéen ñi waaye yonente bi lan la def daf leen jumelé bayna al muhajirina wal ansar jumelage boobu ci taarix moom lañu njëkk a xam dans l'histoire ne l'islam moo ko tàmbali kon lislaam wàccoo naax ñun kon yàlla bu ne udxulu fi silmi kaafa duggaleen ci lislaam intégralement amul demi mesure kon bëgg nañu jàmmoo suñu biir ñañu fekk it waa ansaar nangu lolale ba doxal ko ba sax ñu weesu lañu doon xaar ci ñom di def wa yuksiruna ala anfusihim walau kana bihim xasaasa alaf nak day wax ne sama boppam la gënal du beñ naa la xajna waxin la waye wax bi wér mooy sama boppam lay gënal ndax yonent bi day wax ne du ngeen mëna gëm yàlla feex soppantew leen kon bëgg naa la cofeel moo koy lal yërmande moo koy lal cofeel ma ne fu mu dugg rek dangay ngay yéene sa moroom loo yéenewul sa bopp da ngay sa moroom loo yéenewul sax sa bopp ngir jàmm am xamuloo ne ki lay dab walla bàyyi nga génn mu agressé wala nga génn ñu cambrioler sa kër sa magasin sa nangam sa nangam mooy miine gi moo des solidarité gi moo des waaye gox boo xamante ne ña fa nekk solidaire nañ seen diggante jàppalante nañ kii wërsëgam yaatu dana bàyyi xel kii wërsëgam xat borom xam-xam bi dana bàyyi xel ñi nga xamal seen xam-xam demewul noonu ci jàngal leen ci fàttali leen borom daraja ji wacce darajaam suñ ko defé rek jammam suñ ko defé rek jammam kon di jël misal ci lu baax motax alquran waxne in jaakum fasiqun binaba'in fatabayyanu fatabayyanu na ngeen leerlu da ngay dem ci source bi fexe ba gëstu source ba ndax baax source bi baax na waaye ndax bu ma ko waxee duma ma taal penc mi ndax du indi fitna kon waxin dafa am ok professeur ñu ngi lay ziar bu baax seen jërëjëf kon source dafa am solo waxin dafa am solo bu fekkoon danga gis xale bi muy dem maaleykum salaam papam romb fi léegi moo utiliser baatu papam waaye baay baayam romb fi léegi nga ne xale bi sa papa de romb na fi léegi wala sa baay romb na fi léegi nan la koy gisee côté positif la koy gise sa baay romb na fi gis nga wax bi nga wax waaye xoolal boo ne ko sa jëkkëri yaay rombane fi dana la xoolaat kon sa bàyyi rombane fi ah sa jëkkëri yaay yombane fi même wax la waaye waxin bi moo tax kon wax dañ koy ott wax dañ koy rafetal kon nit ñi léeg-léeg ñooy tooñ seen bopp ci wax naka su dul noonu wala dama bëgg wax loo xamante ne à la une jël la mais yaa taalam réew kon di ootewaat di ko jaarale ci association des habitants de la Scat Urbam nañuy wax waxu ngir Sénégal jàmm rek sax fi nañuy jëfit ndax réewum Sénégal jëf ju baax rek lañu xam nañu góorgóorlu ci teranga ba lan ñu takkaloon étiquette pays de la teranga mu bañ di nax saay kon ci walu politique nañu góorgóorlu bu baax ci walu information nañu góorgóorlu bu baax may wax rek ne cierna Hamidou ban diko ko melni radio Safina FM Safina TV ñoo toog ni ñooy ñooy jël mbir yi donc bañ ko annoncé rek la ne mbir maa ngi noonu waaw te nang si daan sonne lépp loo soxla fii ci Scat Urbam foo soxla rajo bi la foo soxla télévision bi boo ootee rek ñu ñu defal la la nga bëgg a def kon nag di ko jaajëfal bu baax a baax a baax kon nag yéen ñu ngi leen di jaajëfal bu baax di leen li ci xew-xew bi ndax ñoo ko bokk kon mbokk yi ci jàmmoo joojule nañu góor góorlu képp koo xam ne da nga jaboote nit mu yëngu ci mbirum wax tas xabaar nañ koy fàttali réew mi réewum jàmmale la du lu la neex rek nga wax du lu la neex rek nga def bokk na ci liy andi jàmm ci réew mooy ci social ñu koy manifestation de paix sociale bu faire formulation bi baax na samay professeurs ngi fi donc mooy asilm te l'islam dafa am lu ñu tuddee maqaasidu sharia way sharia moy xifzu diin respect du culte wan nafs moy l'âme wal aql moy l'esprit wal mal moy alal wal ard moy sa honneur cinq yooyu moy mooy way sharia moy yi na ngeen ko samal doomu adamay نعن كو سامال دوم آدمي نعن سامال نيت كي دينم نعن سامال نيت كي بكنم نعن سامال نيت كي خلم نعن سامال نيت كي علالم نعن سامال نيت كي درم buñ ko defé rek jammam way lo yeki tek ci sa deru maro jàmm du gaaw am sa sax du am kon bala ngaa maye jàmm da ngay nekk nitu jàmm ba noppi moo tax yàlla dafa jël baatu salaam bi nga xamante ne moom la tudd mu wàccee ko ci kaw suuf muy allahuma anta salaam wa minka salaam wa ilayka yaruddu salaam tabaarakta zal jalaali wal ikraam yàlla mooy jàmm kon bu ñu xoolee facteurs yi nga xamante ne mën na indi jàmm mooy yemale yemale ñépp ku si nekk nag ak sa cër yemale ba ci biir kër gi ci jàmm dangay gis borom kër mu ne la kër gi kenn mënu fi am jàmm est-ce que moom jàmmal na waa kër gi est-ce que jàmmal na waa kër gi te jàmmal sa njaboot mooy nga yemale leen mooy nga yemale leen waaye léegi kase yi amul xëy moom la ñuy jël teg ko sa kaw ki ci yàlla ubbeegul lu ñu teg ko ci suuf lu ñuy def kële lañuy ñuy diisoon kële kenn du diisoox moom su ko defee moom it gisatul boppam ci kër gi dootul gisati boppam ci kër gi kon nag way jur yi nañu góorlu ci loolu te way jur nag buñ ko waxee góor ak jigéen ñoo fi ne kan mooy yarkat bu mag bi ci ñaar ñooñu góor ak jigéen ah jigen, jërëjëf jigen ñi ñooy yarkat yi parce que yàlla subhan dafa am lu mu def ci ñoom te defu ko ci góor الرجال قوامون على النساء yàlla moo def kilifteef waaye deful ngëneel de ci góor kilifteef la def ci góor waye jigen ñi lañuy daj bu ko góor ñi dajoon mara day yams si nga la ma soxna yalla leen yàlla sagal yenen yenente bi fay wax ne ya ayyuha an-nas inna rabbakum wahid wa inna abakum wahidun ala la fadla li arabin ala ajamin ba mu jeex yéen ñep yéen bok fu leen yàlla bindi ngeneel amul ci kenn du ci arab bi du ci nit ku ñuul ki du ci xonq ki kenn gënul kenn fi ngeen di gën a rek mooy ci taqwallahi ci ragal yàlla ci tax taqwallahi ci ragal yàlla kon nag ci ragal yàlla ci la ñépp di gënantee bu ñu ñëwee ci avant dernier bi mooy al adl wal ihsan justice et charité l'islam mbokk yi diine jàmm la l'islam diine rafetal la wax naa sànq ne taarix histoire xamul benn communauté benn diine bu andi lu ëpp l'islam ci jàmm moo tax suñu borom di wax ne inna allaha yamurukum an tuaddu lamanati ila ahliha wa ida xakamtum bayna annaasi an taxkumu biladli sadaqa allahu alazim mu ne yàlla moo leen digal sante leen ngeen di doxal dëgg ndénkaane yi ngeen di ko delloo secret professionnel yi ngeen di ko téye nit day am bàmmeelu biir waaye lu ñu la wax rek penc mi yëpp dégg ko ñu ne nopp yi sax dañu am miir yi dañu am ay nopp amuñuy nopp nit ñi ñooy toxal wax nit ñi ñooy toxal wax ku si ne am nga sa homme de confiance moo xam góor la wala jigéen la ngeen waxtaane na yem ci yéen suñu koy def rek sécurité dina am nit ki dana tranquille dana xam ne ah diwkat loo ko wax yaa koy nettali waaye du doon moom kon dëgg suñu borom ne bu ngeen di àtte ci diggante doomu aadama yi na ngeen fa jaarale dëkk na ngeen fa doxal ak màndute màndute dafa nekk cëslaay ci jàmm li ñuy tuddee paix sociale bu fekkente ne jàmm màndute dafa laaw jikko yi kon lan mooy xew jàmm rekk mooy am ci dëkk bi nit ñi bu ñu tëddee danañ nelaw fu seen alal nekk danañ ko sàmm seen xel dana ci dal يرنتي بي صلى الله عليه وسلم dafay wax انما اهلك الذين من قبلكم انهم كانوا اذا سرق سرق فيهم الشريف تركوه pour doxal mandouté doxal justice ngir jàmm mën am am ku bok ci famille bu noble comme niñ koy waxe kilifa njabotam am lu mu jël te waru ko jël ñu ne bon dañuy teg pen bi l'islam wax ci moom atte ñu ne am nu masud yow day yonente bi njabootam nga am na ci yow kóolute am na ci yow kersa demal nga ñaan intervention ci loolu le yonente bi karo dafa mer saxaaba yi ne gëñ nañoo gis mu mere noonu le mu nekk atashfau fi qaddillah atashfau fi qaddillah ndax lu yàlla dogal yow yaay ñëw di ñaan intervention ci loolu kon nit dafa jalgati buñu bëggé pé am ku jalgati nañ ko teg àtte ku tooñ nañ ko teg ku tooñ waxuma nak àtte sharia parce que àtte wonu sharia waye loi bi même biñu d'accord ñun ñëpp ne moy suñu constitution nañ ko doxal jammam buñ ko doxalé rek jàmmaam yonent bi ne ko wa aymullahi law anna fatimata binta muhammadin saraqat la qata'tu yaddaha géñ naa ne Fatima mii sama doom su sàccoon ma ma dagg loxoom suñ ko waree tëj ñu tëj ko léegi da jalgati da def lu la neex détournement day am yépp day am waaye du mu jëfen kañ la jàmm di am mbokk yi kañ la jàmm di am bu ñu ñëwee ci at taawun wa taaxi wa takaaful at taawun dama koy jéggi والتأخي والتكافل موي كوبيراسيون فراترنيتي اي سوليداريتي الاسلام دا فا ديغال نجابوتام نيلين دي لين ديمالينتي تي لو باخ نده انما المؤمنون اخوه اي فرير غين اي سير غين بو نين تي تنكو دا نين فورمي سوسيتي بو خامني سين نون دا نالين راغال bu fekkente ne jàmm da ko bëgg ut ko sa voisin sa dëkkandoo sooy génn di xëy na xam ne yaa ngi xëy sooy tukki na xam ne yaa ngi tukki soo wàccee mu yëg ne wàcce nga mais loolu moo tax benn sàmba booy bu nar ñëw si sa biir kër di fa def naka su noona dana xam ne diw mooy diw diw bu fi nekkul diw mu ngi fi taxaw kon loolu lu jar bàyyi xel la السلام عليكم ورحمة الله نيغي دار دالال مرحبا بكم يا شريف مرحبا مرحبا بسم الله تفضل مرحبا مرحبا بارك الله بارك الله آه اوكي يا امي جرجف جرجف جرجف يا امي ما شاء الله يانا يالا فاي يانا يالا باركل جرجف moom it mu ngi mu ngi jóge ba yoof moom mooy yaay soxna si yaay mi yal na la yàlla sagal bu baax la yàlla taxaw bu baax a baax kontaan nañ bu baax ci seen teewaay kon yonente bi sallallahu alayhi wa wàccoon na ax ñun mbokk yi kon nag communauté bi dañu soxla jàmm moo tax koo romb di ko wax asalaamu aleykum jàmm yàlla na nekk ci yow momi mu delloo la ko waye bu mu yem ci làmmeñ rek kon communauté bi dafa soxla jam su ko defee dans 5 minutes rek ñu résumé ndax waxtu bi dox aja mu dugg ci thème bi hein inshallah voilà fa 5 minutes rek nga def ma signe inshallah allah su ko defee wa ibaadu rahmani allazina yamshuuna ala al ardi hawna wa ida xaatabahum aljahiluuna lan la wax qaalu salaama danga nga génn mu am ku lay agressé verbalement physiquement wala nàngam nga mën fayu man riposte nga ne ko baal ma sëñ bi jéggal ma maa maa ngi jéggalu maa juum maa tooñ te doon tele tooñoo waaye da nga nekk nitu jàmm danga bëgg jàmm yàlla ne lu mel noonu laay xaar ci njabootul islaam waaye bu fekkente ne lu waaye def ah bon kan moo fi sotti li nga ne diw kan moo fi teg li nga ne diw baxna day dof dof lu mako gëna dof dañuy bari ay dof day dof dof lu nitel def la yonente ba defon sallallahu alayhi wasallam waye bu lu wane dina xam man may kan daf ma réré rek waye dina xam man may kan du dem fet nit bu la réré da ngay fexe mu xam la nit bu la soré da ngay fexe mu jégal la nit bu la minul da ngay fexe mu min la lolu moy indi jam mbokk yi da ngay gis nit mu teg exposé ci loo mbalit lu jaaduwul mbedd mbeddum bour la bour existé wul ñun ñoy bour ñun ñep nga yëkkati defar ba mu sel dem bu la observer, benn yoon ñaar dina yedda bopam dina ne man dal vraiment niteew ma xoolal mi mais ki def li mom moy kan ki gënuma ki buñ tegee moy nettoyer moy defar lu fi jagadi mom moy defar mais lolu moy citoyen modèle loolu mooy citoyen model su ko defee ci andi ci citoyen model da ngay gis koo xamante ne mutasaamih fikriyan li naan intellectuellement tolérant lay nekk dafay tolérant ci lépp dafay tolérant l'islam soxla na nit ñooñu le mu'tadilun sulukiyan am comportement bu du kooku dañ koy soxla ci bépp citoyen citoyen modèle dafay góorgóorlu ba conscient ci système politique ak économique et social yi am ci réew mi nga ne nangam bi sama constitution bëggu suñu àttee charte réew yi bëggul nangam ku def nangam nangam mo la ci fek ku def nangam nangam mo la ci fek kon dañuy soxla lolu ci un citoyen modèle kon nak pour résumer al amn al ijtimai huwa tumanina moy équilibre moy tranquillité moy dal lolu lañuy soxla ci gox bu ne su ko defee dal bu amee jàmmaam am tiit day dàqu ragal day dàqu fitna day dàqu moo tax suñu borom ne wattaqu fitnatan la tusiban allazina zalamu minkum xaasa moo tax ku leen fitna baaxul kon nit da nga koy gis mu dal mu lewet roy ko ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax suñu borom ba mu koy tagg yépp تجاو كتيران سوسيال ديدت دفنك وإنك لعلى خلق عظيم بفرنك روي لو نيكو نيو ولكم في رسول الله أسوة حسنة موي سين موديل نغن كوري موي سين موديل نغن كوري كون جيكو بو جيل pour jamma am ci rew mi buñ ci royon yonent bi rek sallallahu alayhi wasallam lepp jeex kon nak jur wu ne borom kër gu ne soxna cu ne jëkkër ju ne doom ju ne jarbaat bu ne surga bu ne jàppal ne jàmm pour mu am fa nga nekk ci day commencé si yow day commencé si yow boo jàmmalee sa bopp wallahi lépp dina am jàmm waa salaam jërëjëf jërëjëf Adja Jargat Mbay Mbay jërëjëf Mbay jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf kon su ko defee mbokk yi yal na nu yàlla dolli jàmm yal na yàlla dolli jàmm ci réew mi yal na yàlla dolli jàmm ci àddina bi loolu mooy woon première partie bi may jox rekk suñu jigéen suñu soppe suñu wayjur Adja Fat Bintou mu dugal leen ci solidarité ndax solidarité foo koy waxee rekk jàmm day am boo leen boolee ñoom ñaar développement pour mu am foog paix am foog solidarité am yal na nu yàlla defal loolu le wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu